السلام عليكم ورحمة الله. مشي المينستر تيجي صوبة تي agriculture لنا خيام. نيوغان تيجي pesh. مي سектор بوا خامنئي أمسرة لتريهم. أمسرة لول تي دلو دام آدم. أجا واحد نكوليجي سوما كوليجي. تي communication بيورونا أم تي pesh. بور نينغ خامنئي نيوي أكتري. mën a xam réellement ce qui se passe ndax dina leen dimbali xam nga démb ba tey nag nous sommes sous couvert du protocole socialiste mais ñoom nag ils sont plus pragmatiques que nos frères libéraux de la paix ndax ñoom seen um, seen xam-xam bëriwul donc ci ay erreur rek la ñuy naviguer fois. monsieur le ministre géej gi jaay nañ ko jaay li ne ci géej gi ba tax na yaboy sax amatul ci dëkk bi kenn gisatul yaboy ci booru géej ndax bato yi nga xamee ni ñoom la ñu yaakaaroon ni dañuy ñëw di napp ñëwatuñu napp dañuy ñëw di pompe bato yi ñëw ci géeju ndakaaru gi ñu wër ak ci yeneeni gox ci biir Sénégal nappatuñu ndax napp dangay sànni pour mën a génn jën yu mag yi yóbbu bàyyi fa yu ndaw yi ñii nag dañuy pompe ba seen i van

pêche artisanale bi dañuy dem géej ñetti fan du ñu indi dara bu liggéey bi doxul chômage day daal di dugg bu chômage duggee xel mën a nàcc ci def leneen lan moo poussé xale yi tey dans des zones yoo xam ne zone côtière la mu leer ñu ne ay nappkat ñoo fa newoon ay xale yu am jom doon nappi ñoo fa nekkoon tey buddi nañu yéeg seeni gaal de fortune pour dem vers l'Europe parce que am na zone yoo xam ne boo fa nekkee mën nga gént sax gis Europe à moins de kilomètre bu temps bi baaxee mais lan moo leen yóbbee boobu situation ba ñuy jaay seen bakkan di dem à extérieur te ñoom ñëpp xam nañ ni foofu ñuy dem muy Espagne muy Italie feneen en Europe y a plus rien ñun xam nañ ko comme ni ko sama collègue Mor waxee léegi nous avons vécu pendant 30 40 ans en Europe en Italie dans le sud en Espagne kon xam nañ la fa xew dund nga xale yi dund foofu dara jaru ko ci àdduna mais nag lan la ñu bàyyi seen réew ak ci yan espoir la ñu amoon pour mën a napp wala ñu bay wala ñu yëngu ci loo xam ne dina leen amal njariñ ba ñu gàddee seen jom ak seen titre kon y problème collègue bi wax na ko léegi nañ dellu siwaat ci lii woyloo Sénégal démb ci émission boobu muy wax ni diisoo ak nappkat bi diisoo ak sàmmkat bi diisoo ak baykat bi maître donc dans ce pays il faut quand même nous am une coordination Nous avons un gouvernement mais buñ avons une ci avec am ay coordination ak le ministère de l'intérieur ministère de la pêche ministère des forces armées ñu sommes réew mi parce que le problème sécuritaire est là à un certain niveau Les européens ils ont yi ñuy jox une coopération suñu alal moy alal di ñu domp ci suñu yaram yi exploité ñu ba mënatuñu dara moy alal di ñuy sàcc suñu géej moy alal di ñuy sàcc suñu jaww ji dara la ñu joxul gratuitement tout est sous calcul donc ñun ngir yàlla nañu am fulay nag euh, jéem a aspirer tuuti à notre indépendance économique à notre indépendance dans toutes ces zones yooyu nga xamee ni tey ñoom seen lépp ci Afrique lañ ko pompé bàyyeetuñu phosphate bàyyeetuñu zircon bàyyeetuñu dara lépp la ñuy pompé yóbbu liggéey ko wëlbatiku jaayaat bi ko loolu mënul ànd ak développement mënul aspirer à l' émergence donc slogan yu bari yi yëpp day duggaat ci même wax bi may wax ni monsieur le ministre le port de Dakar ñun aussi wax naa ko fii démb concernant l' aéroport nous sommes des bailleurs dans ce secteur nous les Sénégalais de l' extérieur dañuy conteneur ñu super taxé ko ba li taxoon ngay daw di ñëw sa réew boo yeboo xam ni sax bagage yi nga fi indi boo moytul di nga ko génne sàmm ko jaay ko nañ ci dolli sécurité merci honorable merci